du ma ci sori sax parce que yàlla def na ni musuma dem conservatoire donc am naa ci don maanaam may yàlla ma judd ci musique ñu ngeen ma xaalis ci musique comme ni ñu koy waxee ma yàgg ci lool lool lool maa ngi ciy bëgg def fukki at te métier boo def fukki at nag diñ ci xam as ci wéyu boy deretu coon mooy daw suma yaram sama deret dawul ci deret ci yaramu coon coon sekk moo ma jur man fu ma mënti dem drapeau Thione sekk lay téye fu ma mënti dem drapeau Ballago drapeau Faramare lay téye donc pour signature Thione Seck à la mu neex ma ma bëgg ko moom lay porter quand de parolier je serai jamais comme Thione Ballago Seck dinaa ko bëgg de dinaa ko jéem waaye moom li ko yàlla may moom rek la ko may maanaam ci wàllum bind wàllum tënk loolu Thione la ko may may ko wàlli waaye wàll itam am na loo xamante ni yàlla may na ko ko te mayu ko coon donc euh, soo gisee ma def choix wu parce que dafa di monument de la musique sénégalaise ba pare teg ci may doomam ñu bokk deret beneen bi topp mu bëggal ma boppam daxaw ci télévision nationale ne Wally Seck bi muy yëg Grand Théâtre dama jooy kilifa bu mel noonu musique sénégalaise dafa am crise mën nañu wax dafa am crise d'un côté mais man je peux pas me permettre de dire ça mënuma permettre wax loolu parce que musique bi yóbbu na ma fu sori musique bi may apporter li ma ci bëgg as néew même su fekkee jotaguma lépp yàlla def na maa ngi ciy jot dara donc musique bi am na crise d'accord mën nañ ko wax parce que nag bu ñu naxante euh, suñu papa yi ñoo toog ñoom tamit génneetuñu musique

ku ne xam na ni bëgguma spectacle dee son et lumière bëgguma mu dee dama lay posé waat question ba nga ñëwee grand théâtre wala ba nga amee aperçu ban idée la jox est-ce que kontaan nga wala kontaanoo est-ce que gis nga son et lumière ak bu spectacle bu magnifique ou pas dund ngeen ko donc kon xam nga ni maa ngi ci damaa matul lépp nag parce que euh, suñu borom rek moo mën a matal te maa ngi ñaan yàlla ak sama sat bi man dal yàlla bàyyi ñu ànd incha allah ba li ngeen bëgg ci man xam naa ne yéen la rek moom mottale ko incha allah waaw album international bi nag euh, dina bëri parce que man sénégalais sénégalais la te dama war a jaay def album international world music lay def c'est parce que damay dem topp tubaab bi du yóbbu sabar du yóbbu dara non non non damay leen imposer sama rythme man imposer li ma bëgg ñoom indi seen choix ñu boole choix mu nekk lu nice ñu tënk ko. album bi def naa ci un peu ba yóbbu ko musique démb c'était mon choix pour wane ni mën naa ci facette yëpp mën naa mën naa bor bi mën naa bor bële mën naa ca mën naa ca cabal donc nii la demee. question mooy euh, en fait lu loolu télépathie la.